maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaar di leen jox seeni wàccuwaay mbokk kom comme nu ma leen ko daan defal silsila bi nga xamante ni tàmbale woon nañ ko muy alxalaqa ala ataasi'a foofu la ñu yéemoon ñu bàyyi ngum pour mbokk yi mën a souffler mën euh, nafar li nga xamante ni jotoon na fi jaar parce que lépp loo gis ci rekk il faut nga bàyyi nit ñi ñu souffler tuuti affaire lu jot a jaar ñu daldi ko nafar nga doog a continuer mbokk yi loolu moo taxoon bu ma ñëwee ba faslu taasi am ma di taxawandi taxawandi ba bisu tey bisu tey ma nar leen a al aashira min al fasl al aashir في دراسة مقارنة بين العقيدة اليهودية والعقيدة الوهابية mooy étude comparatoire comparatoire bu may def entre pas-pasu wahabi yu nay lu ñuy fas ak li nga xamante ni moom la yahuud yi fas mbokk yi comme ni ma leen doon wax loolu mooy wahabiyuune yi ak yahuud yi seeni pas-pas jël ci ak jëf ci la loo fekk ci téere yahuud yi boo ñëwee ci téere wahabiyuuna yi loolu nga fay fekk waaye sax wahabiyuuna yi léeg léeg-léeg ñoom ñooy gën a teeŋal yahud sax ci kalimaatul kufriya baat yoo xam ni ñu ngi koy askanal borom bi subhaanahu wa ta'ala te baat yooyu kalimaatu shirk neen la boo ko xoolee ba xool madaarisul usuliya yi nekk ci àdduna yépp amul madrasa min masa madarisul usuliya ñu am pas boobu du chia yi du asaira yi du mutazila yi ñoom ñooy madrasa yu mag ak maturidi maturidiya naxsabandiya doo gis ci benn kuréelu ci kuréelu jullit yi ñu am pas-pas bi nga xamante ni moom la wahabiyuuna yi fas waaye pas-pas boobu ci kuré ci diine yahud rek nga koy fekk loolu moo waral ñu indi gaar ko gannaaw ñoom ñu ngi woote woon ni ñoom ñooy champion ñoom ñooy jàmbaar ci tawhid ku dul ñoom ci shirk la ñuy dund naudu billahi ci kàddu yu juuna yooyu waaye ñu ñëw teg seeni pas-pas bu ñu ñëwee ñoom ñu jéem ko daj ñu xool ndax am na ay jullit yoo xam ni am nañu boobu pas-pas buñ defee mu qaarana boobu ci lañuy xam kan moo gën pas-pas waay du wax kese ñoo gën ñoo gën ci làmmiñ waay ci xam-xam lañ ko war a teg xool ndax loolu mooy dégg walla du dégg mbokk yi al faslu al ci al xalaqa al aachira luñ ci jàngale mooy nisbatuhum alwasfu alxabiir yu ñu jële def melal yu bon askanal ko borom bi subhanahu wa taala wannaatu chanie ila rabbihim jëm ci seen borom tabaraka wa taala yooyu was ak yooyu naat mbokk yi moom lañ leen di indil nee na gannaaw bu mu leeralee ci aqide yahudiya yay ak seen niroo waale ni ñu niroo ak yahudi ci seeni aqaid ak seeni wax nee na dinañ leen wax li nga xamante ni wahabi nay wax nañ ko téngal ko ci ay baat te baati yooyu gisuñu ko ci téere yahuud yi mbokki yële dañuy def comparatoire indi yahuud yi indi wahabi yuna yi te wax dëgg yàlla juróom ñeent xalaqaat yi ñu def yeet amul ci ñoom ci nga xamante ni seeni boroom xam-xam yi ñëw dàq lu ñu wax kon dañuy jàpp ni lépp li nga xamante ni indi nañ ko ci seen téere lañ ko tibb te du ay téere riwaayaat yi waaw du silsilatu riwaayaatu sahiha li albani wala gayruha min al kutubu riwaayaat waaye téere pas-pas wahabi yu nay dëggantaan foofu lañ ko tibb mbokk eh, bu ngeen xoolee ba xool di ngeen gis wahabiyuuna yi ñu ngi wax sa ay baat baat yi nga xamante ni boo demee ci tawraatul muharraf ñeel yahud yi doo ko fa fekk loolu ay baat la yoo xam ni baatu shirk la baatu bokkaale la ku dul ñoom kenn du ko wax ndax yahud yi sax waxewuñu ko kon loolu nekk lu yéeme ci pas-pas wahaabiyuun ñoom ñi nga xamante ni jullit yi mënuñu am jàmm ci ñoom ndax nu ñu foog ni ñoom ñoo am pas-pas bu leer keneen ku ku dul ñoom sa pas-pas wérut mbokk yi loolu moo tax bu ñu jëmee ba def étude comparatoire looyu ñu ñëw gis ni ndekkite yoo wahaabiyuun nañ teengal nañu sax feeñal bi nga xamante ni lu yahud yi waxul sax ci tawra tawratul muharraf ancien testament bi ñoom ñu ngi koy wax mbokk boo demee ci téere bi wax na bi nga xamante ni ñu ngi koy wax ni fatawa la aqida xam nga loolu aqida wahabiya la lil usaymin tabo bi dañ ko taboo ci maktabatu sunna page cinquante nga fekk fa mu ngi wax ni laa yuusafu almakru laa yuusafu allahu bilmakri illa muqayadan makru boo ko degee ci arab lool mooy pexe yu bon kenn du ko askanal borom bi subhanahu wa taala lu dul ci anam bi nga xamante ni dañ koo muqayyad dañ koo tënk fa in qiila kayfa suñu waxee nii naka la kayfa yuusafu llah kayfa yuusafu llahu bilmakri askanal yàlla li nga xamante ni mooy pexe yu bon ma anna zahiruhu ak za fekk zahir baatu boobu annahu mazmumun dañ ko sib walla dañ ko euh, baat bu bon la xiila nee nañu inna al makra niki pexe bu bon fii mahallihi mahmudun ci bërëb palaasam de loolu dañ ko gërëm lu ñu gërëm e, di doom contraire mooy mazumu mooy lu ñu gërëmut maanaam nee na baatu pexe yu bon lu ñu gërëmul la waaye bu ñu laajee loolu makru bi nan lañ koy waxee borom nee na makru bi de ci palaasam lu ñu gërëm la kon donc ñoom fii nii ñu ngi askanal yàlla makru bi incha allah di ngeen gis jullit yi bu ñu ñëwee ci beneen eh, kii bi eh, deuxième tome bi di ngeen gis jullit yi nan la ñu firee lool. donc yahudi eh, nu mu tuddati yahudi sax waxuñu loolu ci tawratul muharraf mbokk yi boo li nga xamante ni mooy kalimatul makr wahabiyuuna yi duñ ko mën a taawil ndax taawil ci ñoom lu haraam la ñoom nee nañ de yàlla lu mu waxal boppam rek loolu lañ koy askanal duñ ko askanal mukk lu dul lu yàlla waxal boppam kon makr loolu mooy pexe bu bon ñoom duñ ko taawil mukk makr boobu dañu jël firi ko ci baatam askanal ko ci borom bi subhanahu wa taala loolu de makru de boo xoolee mooy pexe bu bon loolu de mazmumun lu ñu gërëmut la te wahaabi yoona yi ñu ngi koy askanal borom bi nga dem ci page cinquante et un muy wax naan inna allaha niki yàlla inna allaha niki yàlla lahu melal yàlla dafay am njàqare malal mooy dojar wa dayk koo xam ni dafa am njàqare amma malalullahi nee na waay njàqarewu yàlla fa innahu malalun loolu de njàqare la yalu yaliku bihi loolu dafa méngoo ak borom azza wa jalla gis ngeen loolu tamit bu ngeen demee ci tawratul muharraf li ngeen fekk baat ju bon boobu foofu subhanallahi subhanahu wa taala amma yasifuhu alwahabiya uluwan kabiran mbokk yi boo demee ci page cinquante deux ci téere boobu nga fekk muy wax ni amma xidaaw nee na pexe xidaa mooy pexel doomi aadama fa huwa kal makru mu ngi mel ni pexe bu bon yuusafu llahu dañuy koy was dañ koy mas mellal moom borom bi bihi ci loolu hiina yakunu madhan waaye loolu de ñoom dañu firi ni fireewuñu taawilewuñu ko mais ñoom dañu ne loolu de e, madhu la maanaam loolu dañ koy tàgg borom bi subhanahu wa taala subhanallahi subhanahu wa taala amma yasiful wahhabiya uluwan kabira lii de baatu kufriya la kalimatul kufriya la bi nga xamante ni yahudi yi sax ci seen bopp boo xoolee seen ci seen téere doo ko fa fekk mukk mbokk yi ba léegi ñu daldi di ci baatu shirk yi nga xamante ni baatu bokkaale yàlla la te wahabiyuuna yi saxal ko ci seen téere akida di ko fas te benn jullit fasu ko ci àdduna ku dul ñoom boo demee ci paas soixante quinze ci menn téere boobu nga xamante ni téere usaymin la foofu la wax yu juuno yi nekk mooy fataawal aqida lil usaymin foofu la wax yu juuno yi wax yu bon yi nga xamante ni askanal nañ ko borom bi subhanahu wa ta'ala di ko wax te benn jullit fasu ko foofu ngay fekk wax yu bon bi nee na ñi nga xamante ni ulaika ñoom alladina ñi nga xamante ni yataammaquuna dañuy xóotal fi sifaati ci sifaatu yàlla yi melokaan yàlla wa yuhaawiluuna ñuy fexe ay yasalu ngir ñu laaj xatta an anil asar ba ci weeyi nee haada bii de fii xaqillahi ci àqu yàlla la kon wahabiyuuna yi de ñoom ñu ngi jël lépp li nga xamante ni melokaan yàlla la melo melokaan yàlla la jël melokaan yooyu meloo ko ak meloowu mbindeefoon yi te duñ ci jaar sax taawil pour ñu mën a dégg wax ji mbokk yi comme nu ma leen ko waxee ñoom nee nañu yàlla lu mu waxal boppam loolu lañ koy saxal kon ñoom amuñu taawili fenn te alquran de bu muy wàcc ci ku ci mbindeef muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa dafa fekk arab yi de di utiliser kalimatul istiaara di utiliser almajaz te alquran ci baatu al arab la ñëw pour nit ñi man koo comprendre kon donc ñoom alquran dafa ñëw uslub bi nga xamante ni moom la arab daan waxee waaye wahabi yu nay dañuy teg loolu fele dañuy teg loolu fele nee nañ duñ ko taawil de waaye taawil daf leen di neex su fekkente ni arrangé wu leen wahaabi yu nay taawil nañu man kuntu mawlaahu fa haada aliyun mawlaahu jéem nañu taawil nañu hadis hadis boobu nekk hadis bu leer waaye jéem nañ ko taawil waaye lépp li nga xamante ni melookaan la day wàññi borom bi subhaanahu wa taala daf koy mellal ay mbindeefama dafay jël yàlla jox ko jëmm comme jëmm doomi aadama yi nee nañu duñu taawil loolu mbokk yi loolu nekk lu doy waaru ba léegi benn téere loo boo demee ci safa cent vingt nga fekk foofu ibnu taymiya wax ne yaquulu muy wax ne borom téere bi di wax ne qaala ibnu taymiya ibnu taymiya nee na walladina ñi nga xamante ni yusabbituuna dañuy saxal taqribahu al ibaad eh, jegel yàlla jegel bu yàlla jegel jaamam ila zaatihi dem ci zaatami comme si ñoom sifaat yi sax dañu jël yépp def ko zaatullah subhanahu wa taala lépp luñ ciy wax rek ci waxu kufriya boobu loolu mooy zaatullah subhanahu wa taala moom yàlla lool mooy melowam dëggantaan xaqiqatan nee na huwa al maaruf nee na loolu de ñii nga ni dañuy saxal jegel bi yàlla jegel ab jaamo yi dem ci zaatam nee na loolu mooy waxu dëgg ci salafi ak a loolu de saa yoo leen déggee ñu wax loolu loolu mooy ñoom seeni aslaaf yi ak seeni a moo tax nee na ibnu taymiya nee na ñi nga xamante ni dañuy saxal jegel bi yàlla jegel jaamo mi dem ci zaatam nee na loolu mooy waxu dëgg salaf yi ak aima yi nee na wa aqarrahu mu daal di saxal loolu ala dalika mu saxal ci loolu bi sukuutihi ci noppiyoom an hada naqli ci naqlu boobu nee na wa hada lii de yalzamu minhu anna allaha nee na haada lii de yalzamu dafay war minhu jóge ci moom anna allaha ni yàlla yamassu dafay laal wayo hissu dafay yéeg wayo gissu boo degee jas loo mooy yéegi-yéegi xel mbokk yi xool leen wax bon boobu taala allahu an zalika nee na de kaweenal ci loolu de kabiran uluwan kabiran yàlla gën naa kawe loolu ndeysan mbokk yi gis ngeen de wahabi yuuna yi seeni pas-pas nañ ko teengal bi nga xamante ni yahuud yi sax teengaluñu ko noon boo demee ci safa quarante neuf ci téere bi in nafiya tamsili nee na mellal wala misaalal ci yàlla subhaanahu wa taala yàlla mi wax laysa kamithluhu shay'un kenn melul ni moom noom nee na inna nafiya tamsil dàq loolu nag tamsil ci yàlla huwa alladi warada fi lquran karim loolu moo ñëw ci alquran walam yarid fi lqurani nafyu tashbih nee na waay tashbih moom kenn dàqu ko <laughs> tamsiil misaalal ko nee na loolu la ñu waaye li nga xamante ni mooy tashbih maanaam niroole yàlla ak mbindeefam nee na yàlla dàqul loolu mbokki wax jooju lan lañ fi war a dégg mbokki ñii ñooy woote woni ñoom ñoo gën tawhid xolal wax ju juuna bi nee na moom la alquran dàq waaye tashbih moom yàlla dàq ko subhaanallah tashbih bi zaatihi shirk la ndax boo ne fulaan mitlu fulaan qad shabbahta bihi waaw da nga jël mellal ko niroowaale ko ak kooka léegi nag nan la ñu ñaari baat yi takkale leen pour ñu mën a ta saxal eh, pas-pas bu bon bi mbokk yi ba boo demee ci téere bu tudd sharhu hadisu nusul boo demee foofu boobu tamit seen téere aqida tubia daarul asima boo demee safatu mille neuf cent eh, boo demee safa cent quatre-vingt-dix-huit nasaba ibnu taymiya ibnu taymiya dafa askanan ila rasuli ci yenente bi sallallahu alayhi annahu ni ki yenente qaala moom moo wax wallahi yenente waxu anna rabba ni ki ye ni ki borom yetadalla fi jawfi layli dafay ñëw ci xaajo guddi ila sama dunya ci asamaane adduna bu ko defee bu nekkee asamaane ad bu nekkee beneen asamaan bi lool mooy lu nekk asamaan adduna daf koo umb subhanallah subhanahu wa taala amma yasifu lwahabiya uluwan boo demee ci page deux cent trente huit foofu de mu ngi fay tuddee jisman maanaam jëmm fa yaquulu muy wax ni qad yuraadu lu ñu namm bi lafzil jismi ci baatu jismu yaram wal mutahayis ak loo xam ni dafa wërngal këpp maanaam dafa tënku maa yushaaru ilayhi nee na lool la ñuy eh, tegtal dem ci boom bi maana nee na ci maana anna al ay aydi turfaw ilayhi fi du'a loolu mooy luy wonee ni yàlla jismu la wa mutahayizun dafa wërngal kap ci benn place dafa tënku ci benn place nee na loolu moo tax nit ñi bu ñuy ñaan dañuy yëkkati seen loxo yóbbu ko ci asamaan mbokki wahabiyuuna yi ñoo doy waar mbokk yi xam ngeen ne aalam bi nga xamante ni mooy duniya maxlukaat yi yépp ay matriel la temps ak espace matériel moo ko am yàlla nag temps ak espace tënku ko eh, sow ak penk tënku ko ndeyjoor ak càmmoñ tënkuli yàlla loolu de suñu aalam la mi nga xamante ni matériel la maxluukun kon doome aadama dangay ngay de ñu dem mbir diw de ay mbiroom ñu ngi kawe rek dangay ngay dégg loolu ñu ne place am de dafa yegg ndax loolu dañ koy lambatu di gis déedéet doomi lépp lu am solo ci moom gën ci moom fan lañ koy kiyee ci kaw waaye lépp lu nekk ci suuf rek loolu da ko doy dalal diw de ay mbiroom yaa ngi wàcc diw de ay mbiroom day wàññeeku day wàcc ci suuf est-ce loolu lu ñu mën a làmbatu la déedéet mbokki mbiri du noonu kon donc doomi aadama buy yëkkati loxoom est que loolu moo wone ni yàlla mu ngi tënku ci kaw loolu moo tax ñuy yëkkati seen loxo comme ni ko ibnu taymiya waxe te usaymin ñëw jottalin ñu ko mbokki loolu nekk lu yéeme ci pas-pas wahaabi yu mbokki boo demee ci téere boobu ba léegi charu hadithul nuzul boobu tamit téere aqida la ci ñoom boo demee ci paasam deux taymiya mu ngi wax ni wa wa amma asha wa fa maalumun annahu lam yunqalu an ahadin min al anbiya'i wala alsahaba waltabiina wala salafi wala wala sala wala salafi l ummati ann allaha jismun nee na li nga xamante ni mooy chara mooy charia nee na lu ñu xam toxaluñu ci kenn ci ambiya yi ak sahaba yi ak taabiuna yi ak salafi umma bi ann allaha ni ki yàlla jismun ab yaram la aw anna allaha walla yàlla laysa bi jismin du yaram maanaam ñaari kaddu yépp kenn jëlul ci ñoom ni yàlla ab yaram la déedéet du yaram bal nee na bal waaye an nafyu wal isbaat bidaatun fi sharia subhaanallah nee na dàq ne amul yaram loolu bidaa la waaye saxal ni tamit am na yarab bidaa la subhanallah mbokk yi xool leen taxawaay moom léegi fan la bëgg a teg tànkam moom ibnu taymiya waaw mu ne nga saxal ni yàlla dafa am yaram loolu jismu la loolu bidaa waaye dàq ni tamit yàlla du yaram loolu tamit bidaa léegi nag wahabiyuuna yi fii nii yéen rek yéen a ko mën a saxal fan ngeen bëgg a taxaw fii fan mooy seen taxawaay ci wax jii nii wax yu yéeme ji mbokk yi ba léegi ci téere bu ñu tudda qurratu uyunil muwahidina kooku lu ku ko binde mooy setu Muhammad bun Abdul Wahab fondateur wahabisme mooy ku sos wahabi Muhammad bun Abdul Wahab boo demee ci safa cent soixante seize muy wax ni wa daxkullahi nee reetaanu borom bi de aslun loolu asl de ci seeni aqida wa xaqiqatun te loolu lu déggu la yàlla dafay reetaan subhanallah nee aslu la wa xaqiqatun lil daxk loolu mooy reetaan déggantaan yadahaku borom bi dafay reetaan kama yashaakum num ko soobee mbokk yi xam ngeen lu yéeme la boo demee ci paasu cent ci téere boobu nga xamante ni set Muhammad bun Abdul moo ko bindi muy wax ni walakin na waaye ñun naquulu dañuy wax huwa nafsu dahk loolu mooy reetaan boobu dëggantaan mbokk yi subhanahu wa ta'ala amma yasifuhu alwahabiya huluwan kabiran bu ñu jëlee ab reetaan askanal ko borom bi subhanahu wa ta'ala loolu lu yéeme la wahabi yu nay de yaakaar naa waruñu noppi ci lii war nañu ñëw de leeral point yu nga xamante ni moom laa indi loolu de pas-pas la ci ñoom te pas-pas bii jul benn jullit fasu ko yahuud yi nga xamante ni ñoom la ñuy nirool pas-pas fasuñu ko kon mu nekk ab musiba bi nga xamante ni wahabi yu nay ñu ngi ci loolu mooy shirk te yàlla nee na du jéggalu mukk jaamam ci bokkaale yàlla subhanahu wa taala amma yasifu alwahabiya uluwan kabiran mbokk yi donc ñu ñëw ci tënk li nga xamante ni jàlloon na ci dar si yépp li may ñëw wax ni boo demee ci biir da ko fay fekk te gis ngeen ni dars bu ma fi wàcc du ma yem ci audio yi kese waaye texte bi dafay ñëw li may ñëw fii dok donc boo demee rek da nga fekk ci bërëbam incha allah mbokk yi nee na man taabudul wahabiya ban yàlla la wahabiyuuna yi di jaam loolu mooy tënk tënk ci li nga xamante ni jàll nañu yépp dara dar si dégg nga nee na yoolamu dañuy xamle mimma taqaddama ci lu weesu ni ki wahaabi yu nay yaabuduuna jisman ñoom yaram la ñuy jaam waaw yàlla bi nga xamante ni jëmm yaram la yazumuuna ñuy foog ni annahu llah ni moom yàlla kon wahaabi yu nay seen imagination moom la ñuy jaam wa yusammawnahu saxsan ñu koy tuddee ni sax la ndax loolu gis ma wa yaquluuna lahu wa yaquluuna ñuy wax ni lahu wajhun haqiqi wa famun wa am na xar-xaru kanam dëggantaan am na gémmiñ am na làmmiñ wa annahu ni ki moom yadhaku haqiqatan dafay reetaan dëgg dëgg dëgg wa yataazza am na lu koy met wa lahu malalun dafay am jàqare wa yuusafu bil makri wal xidaa makru mooy pexe bu bon wal xidaa pexe la tamit pexe bu bon ñu koy askanal borom bi walahu yaminun mu am ndeyjoor walahu shimaalun mu am càmmoñ inda baadihim ci ñeneen ci ñoom wa ala qawli baadihim ci waxu ñeneen ci ñoom lahu yaminun dafa am loxo ndeyjoor duuna chimalun waaye amul càmbañ kon ñaari wax yi yëpp muy seen kuréel am ñu ci wax ni am na càmmañ am na ndeyjoor mu am ñuy wax ni déedéet ndeyjoor rek la am amul càmmañ subhanallah ci boo ngeen xoolee ju jàll dañuy askanal yàlla ñu koy mellal bil jambi bil jambil waahid mu am benn wet wal aayu ni ak ay bët mutaaddida bët yi bal ala qaw ala qawlin indahum aynun faqat am na ñi ci wax ni déedéet benn bot la yor wa yanaatuunahu bil mashi ñuy jël yàlla di ko mellal dox wal maji ak ñëw wala har wala ak jógi maanaam dox dox boo xam ni niroo daw waaye du daw mooy har wala xasan waaw ci jëmmam ñi koy yëg wa xaqiqatan ci dëgg-dëgg wan nuzulu ñu askanal ko day wàcc xaqiqatan min ala jógee ci kaw wa suudu day yéeg wal irtifaa day yëkkateeku minal asfali ilal aala jógee ci suuf dem ci kaw wal qu'ud ak toog toog wal juluus e, wal juluus ak toog alal arsh ci kaw a arsham gàngu kon donc mbokki wahabi yu lu ñu mënta wax yàlla amut ñuy jog ko tànk e, ci seeni foog foog ni yàlla ci kursiyam foofu lay teg tànkam ñaari tànki kon ñoom mbokki wahabiyuna yi dañu lu ñu joxul yàlla amut ñeneen ci ñoom ñuy wax ne benn tànk la am tànk boo xam ni cer la mu koy teg dugal fii jahannam ci jahannam fala taxtarik tànk boobu du lakk kama anna al malaikat comme malaika malaik kama anna malaikat azabi mbugal fi naari ci safara la yataazawna biha noonu la yàlla tamit di jël tànkam dugal ko ci biir àjjana di làkk ñeneen ñi wax loolu subhanahu wa taala amma yasifu lwahabiya uluwan kabiran mbokk yi ñun de duñ fi nekk de di wax ci neen lu ñuy indi yëpp teg nañ leen ko seeni loxo lii mooy seeni pas-pas ñoom ñuy woote ni ñoom ñoo gënale ñëpp ba pas-pas julliti yëpp mushrikuuna lañu ñëpp dañuy dem safara ñoom ñooy deme ajjana xool leen pas-pas bu bon bi yàlla bi nga xamante ni boo jëlee compas nga jël crayon noir nga jël règle yàlla boobu de da nga koy defe loolu mooy yàllay wahabiya kon wahabiyuuna yi ak mushrikuuna yëpp statut la ñuy jaam seeni yàlla de yàllay statut la seen yàlla mu ngi mel ni nga ne Faaburama mu ngi noonu taxaw Faaburama benn góor soose la rek ñu ne Faaburama mu ngi nii toog loolu mooy yàllay wahabiya suba bokki ba léegi ñu daal di wayandi wa kadalika noonu la tamit yasifuuna allah ñuy melal yàlla bit jawaar yi jox ko ay cër yaram kal kaf loxo joge ci poignet bi ba ci baaraam yi loxo bu ñuy laaj tibb ceeb loolu mooy kaf xaw nuñ koy waxe ci wolof wal asaabi jokkoo ay baaram loxo mutaaddida yu bare wa zira zira mooy doppi ci conc dem ci baaram loxo yi diggante boobu mooy zira loolu tamit ñu jox ko loxo said wa said said tamit ñu jox ko ko loolu tamit mu ngi mel ni zira rek wa yaatabiruunahu ñu jàpp ni yàlla saakinan citadin la dafa dëkk mu am bërëb bu mu dëkk mutaharrikan day yëngatu xaabitan di wàcc wasaa'idan di yëg lii mooy yàllay wahabiyu nay kom kenn ci ñoom muy yëg ci étaasam di wàcc rek wa annahu ni ki moom yàlla law shaa bu ko neexee la staqarra dana sax dina mën a toog sax ala zahri baudatin ci kaw e, gannaaw e, e, yo wa annahu niki moom borom yanzilu dafay wàcc bi zaatihi haqiqatan ci zaatam dëgg-dëgg min al arsh ci arsh al arsh bu ila samaa dem ci asamaan wa yaquluuna ñuy wax annahu niki moom yàlla yadahu yadahu dafay teg wa rijlahu ak tànkam fi jahannama ci jahannam wala tahrikuhu du wa annahu niki moom yaaxudu bi qabdatin benn tibb bi yadihi ci loxam alwusaat ay weddaakoon ñuy weddi yàlla fa yaxrujuhum min annaari mu leen di génnee ci sabara wa yanzilu muy wàcc min alxamaami ci niir wa jabra wa jibrilu an yaminihi jibril a ngi ci ndeyjooram wa jahannam eh, eh, wa jahannam an yasaarihi jahannam a ngi ci eh, nu mu tuddati càmmañam subhanallah subhanahu wa taala amma yasifu alwahabiya huluwan kabira lii mooy kalmatul kufuriya dëggantaan bokki wala xaqiqa ci dëgg dëgg dëgg dëgg anna al ni ko wahabiyuna yi jisman ñoom yaram la ñuy jaam de yataxayaluuna ñuy jendeer yàlla boo xam ni yàllaay imaginaire lañ yàlla boobu mooy seeni yàlla yàlla imaginaire qaidan bu toog fawqa la arsh ci kaw arsham wa huwa la wujuda lahu ni moom amut dégg loo moom ñoom wahaabi yu nay yi seeni yàlla de bu ñu imaginer la si seen bopp fahum ni ki moom abadatu suwar ñoom dañuy jaam ay image wal ajsaam akay yaram wala wax mu ak xalaatu bopp wal xiyaar ak lu ñuy jendeer wa ma zalika ak yooyu yépp yutlaquuna yutlaquuna ñuy wax ni ala ahli sunna wal jamaa ni ñoom ñoo nekk ci sunna ak jamaa annahum dégg nga ñuy wax loolu annahum mus ak yooyu yépp yutlaquuna ñuy wax ala ala ahlu sunna wal jamaa ci ahlu sunna wal jamaa ñi nga xamante ni achaira lañ mutazila yi ak ñi nga xamante ni maturidiya naqsibandiya ñuy wax ñooñu di yàq seen der annahum mushrikuuna ñi ñoom mushrikuuna lañu watani yuuna lañu dañuy jaam xëram e, kubóori yuuna ñoom dañuy jaam jaam e, e, bàmmeel ñuy yàq ñooñu di yàq seen der di di leen saboote fii xiini ci anam bi nga xamante ni annahum ni ki ñoom ay kii ak seen yàlla imaginaire boobu ñuy yàq ñi nga xamante ni dëgg-dëgg ñoom ñooy e, ñuy yàq der di takfiir ñi nga xamante ni ñooy dëgg-dëgg ahlul sunna nee na ñoom mushrikuuna lañ wasaniyuuna lañu koɓore yonana fi hiine annahum ci jamono bi nga xamante ni ñoom wa ahlu sunna dëgg-dëgg ay ahlu sunna wal jamaa ñi nga xamante ni ñooy ahlu sunna wal jamaa dëgg-dëgg hum ñoom al muwahiduuna ñoom ñooy weetal borom ñoom ñooy weetal li rabbihim ñeelin seeni borom al aarifuuna bihi ñoom ñoo xam seen borom almunazzahuuna ñoom ñooy sellal seeni borom an kulli ma nasabatil wahabiya ci li nga xamante ni wahabiyuuna yi askanal nañ ko almujassama ñi nga xamante ni dañu jëli yàlla def ko defal ko yaram jëmm ilallahi ñuy jël di ko def askanal loolu ci yàlla min sifaati naqsi sifaatu naqs boobu nga xamante ni ñoom ñu ngi koy def ci ñooñu wa ahlu sunna dëggantaan ashaira yi mu'tazila yi maturidiya naqsbandiya madarisul usuliya al islamiya ñoom ñëpp set nañu ci lool waaye ñoom dañu jël ñooñu di yàq seen der di leen def kuburi yuuna wasani yuuna mushrikun waaye fekk ñoom seeni yàlla ndekete yoo image yi kese la wa antum ayuha alwahabiya najdiya attaymiya yéen yéen wahabiyuuna yi yen waa najdi yéen ay taalibe ibnu taymiya mushabbaha yéen ñi nga xamante ni da ngeen niirol yàlla ngeen niirol yàlla ak mbindeefam mujassama ngeen dem jël yàlla jox ko jëmm jahwiyatun sawtiya subhanallah yéen dangeen jël yàlla def ko lu nekk ay kàddu kese ay waxu nar kese lool ngeen di wax waxu leen li nga xamante ni mooy dégg te jullit amuñu jàmm ci yéen subhanallah subhanahu wa taala amma yasifu lwahabiya uluwan kabir mbokk yi léegi gannaaw leeral nañ leen aqida wahabiya ñoo xam ni dañu jël yàlla mellal ko melokaan ay mbindeefam wahabiya mushabbaha li aqidatil yahud te seeni aqida niroo ak bu di dinañ len indil insha allah wahabiyuna yi ni ñuy défensé yahudi maanaam ni ñuy défensé yahudi te duñu takfir yahudi loolu dina ñëw ci dar si ñëw nee na ñoom naka lañuy ñuy mën a takfiir yahuud yi te ñoom ñu ngi jàpp yahuud yi ni ay muminuuna lañu waaye dañu jël jullit yi def leen yéefeer ñu jël yahuud yi di leen défendre jàpp yahuud yi muminuuna lañu loolu dina ñëw ci seen téere kilifa yi seeni maraaji ay incha allah xalakaat yi ñëw ci lañuy ñëw seen téere maraaji ay benn benn dinañ leen indi pour wonee leen ni ni ñuy takfiire julliti ñoom dañu jàpp yahuud yi muminuuna lañu te dañuy défense bu baax a baax ci yahuud yi dañ leen di défendre kon loolu dina ñëw kon loolu moo tax lu wahaab yi wax lu bon ci doome aadama buum la jaaxle waaw ndax bi dafa jël yahud sellal ko seetal ko def ko mu omen jël tawraat sax moom def ko teere bi nga xamante ni amul benn tahrif gisoon ngeen ci dar fi weesu ibnu taymiya léeg-léeg dafay dugg ci tawraat tibb foofu ci tawraatul muharraf mu daal di déggal ay waxam kon donc mbokk yi leer na naññe ni jant incha allah dar si ñëw loolu mooy ñëw incha allah maa ngi ñëw julli su ma jullee rek ma ñëw daldi di continuer makru bi nga xamante ni makru waxida bi nga xamante ni ñoom ay baat ñu firi firee ko ci borom bi subhanahu wa taala moom laa leen di indil incha allah ci njàngale ahlul bayt lan mooy makru incha allah maanaam pexe ci yàlla subhanahu wa comme aaya indi na ko ñu firi ko mu leer naññe incha allah mbokki gannaaw bu ñu jullee dañuy delluwaat continuer ñu di wéyandi ci suñuy njàngale bi waaye loolu de gannaaw bu ñu demee ñu gaar pas-pasu wahabi yu nay yi nga xamante ne muja mujassima lañu mujassama wa mushabbaha donc dañ leen di indil makru bi nga xamante ni moom pexe bu bon ñoom askanal nañ ko borom bi subhanahu wa nee nañu loolu de lu ñu gërëm la ci borom bi subhanahu wataala taala maduhu ci yàlla comme so ñoom mënuñu ko firi parce que duñu taawil mënuñu ko taawil ma maana makrullahi lan mooy loolu fi qawlihi taala ci waxu yàlla wa makaru makra wa makaru wa makra allahi wallahu xayrul makirin donc wa makru makru boobu de mbokki al makru ci waxu yàlla subhanahu wa taala ci suuratu ala imran nee tamit yàlla wax tamit fa aaminu makra falaa ya'manu makra allahi illa alqawma alxaasiri xaasiruun suuratu aaraaf da ko fay fekk loolu jawaab bi ali ibnu alhasan ibnu ali ibnu فضال عن أبيه عن الرضا عن علي بن موسى عليه السلام mooy aliyu rida alayhi salaam seetu yenente la aliyu rida baayam mooy imam Muusa al kooku baayam nekk imam Jaafaru Sadiq kooku baayam nekk imam Muhammadun al kooku baayam nekk al imam Aliyu Zeynul Abidin kooku baayam nekk e, al imam al husayn sibti nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa ahadi sayyiday shababi ahlil janna moom aliyun rida ko laajee lii la ci tont mu ne moom e, ali ibn al nee na laaj na baayam laaj na ali ibnu muusa arrida mu ne laaj nañ ko ci baatu yàlla bu muy wax ni saxara allahu minhum ak baatu yàlla buy wax ni yastahzi'u bihim ak baatu yàlla buy wax ni wa makaru wa makrullahi wa makaru wa makrullahi ñëw ci baat buy muy wax ni yu xaadiuuna allah yu xaadiuuna allaha wa huwa xaadiuhum mooy xidaa fa qaala mu ne ni ki yàlla de ci tontam mooma aliyu rida mooy wax noonu de mu ne inna ni ki yàlla mooma aliyu rida buñ ko laajee baati dafa ne inna allaha ni ki yàlla tabaraka wa taala laa yasxaru mooy du tuutal kenn loolu bokkut ci melokaanam wala yastahzi'u maanaam istihza loolu mooy yabaate wala yamkuru te du def mukk pexe yu wala yuxaadi'u du wër mukk walakinahu ni waaye moom borom azza wa jalla yujaasihim daf leen di fay jazaa soxoriya mbokk yi lii mo njàngale dëgg-dëgg lii mooy njàngale ahlul bayt alayhim afdalu salaatu wassalaam du yàlla moo am boobu melookaan azza wa yujaazihim jazaa as-suxriya waaw tuutal boobu ñuy tuutal nit loolu la leen di yàlla di fay baat boobu loolu la tekki wa jazaau l istihzaai ak ak fay yi nga xamante ni yabaate la wa jazaau l makru wal xadia ak peyooru bi nga xamante ni mooy peeru pexe bu bon ak wor loolu la leen di yàlla fay waaye loolu de duwul melokaan bi nga xamante ni yàlla moo ko mel nee na leen taala allahu nee na yàlla aji kawe la amma yaqulu zaalimuuna tooñikat yi jël melo yooyu di ko jël di ko melal borom yàlla kawe na loolu uluwan kawe kabiran kawe bu mag boo demee tawhid lil cheikh suddu boo demee ci safa cent soixante trois da ngay fekke yi noonu mbokki loolu wuute lool ak wahabi yu ne yi nga xamante ni al makru wal dañ ko jël askanal ko borom bi subhanahu wa gis ngeen chi ay seeni tawhid nu muy leere benn nis nis ne fa benn bokkaale yàlla nekk bokki ñu ñëw fii di ko char nee misaal bi comme nuñ koy waxe bi nga xamante ni benn nit jóg na ci jëf di liggéeyal diine lislaam bu muy liggéey ci liggéey lislaam boobu mu gis bopp boppam ni moom moo gën ñépp ci liggéey bu muy liggéeyal lislaamam mu jël loolu ngeneel boobu taf ko ci boppam jël loolu def ko piège pour mu mën a e, mbaal nit ñi walla mu sas leen ci loolu te e, téye leen rëbb leen foofa ak xëcc leen ñëw ci moom nee na boobu Eh, ci lañuy ñuy kooku de dafay wor borom bi subhaanahu bi nga demee ba jàpp ni yaa gën ñépp ngay woo di daawa di def ay propakand di teg ay piège di woote nit ñi ñëw ci sa bopp nga jàpp ni keneen ku dul yow kooku nekkul ci dara waaye yow yaay ki nga ni yaay borom mbir mi yow mii de yaay borom tawhid bu sell yow mii de yaa gën a baax ñëpp nee na boobu yaa ngi wor yàlla te wor boobu boobu lay yàlla di fay kon loolu lañu ñuy wax donc loolu de wahabi yu niñ koy fire wuutee na de nee ci jëf boobu fa jaza fa fa jazaullahi nee fayu yàlla subhanahu aji sell yatimmu dafay mat bi ikaalihi ila nafsihi mu bàyyi nit kooku ak boppam waaw mu eh, wa adamu manahi min hada makri bi shatta al wasail mu bañ koo mu bañ koo tere maanaam moom pexew mi yu muy def da ciy dem de te yàlla du ko ne bàyyi nee na yàlla du ko ko tere du ko ci yee dégg nga ci xafla bi nga xamante ni mu ngi koy def mbokk yi xam nga loolu mooy xafla dëgg yow bi nga demee ba am pas-pas bu bon bi pas-pas bu yàqu bi nga foog ni yaa gën ñëpp waaye yow dégg rek même boo ñëwee ay waxu picc nga wax ko nit ñi bu ñu ñëwee ràdd la nga ne déedéet yéen bëggu leen dégg kon duma wax ak yow kii daal daa bëggul dégg-dégg ñu ne la indil dalil doo ko mën a indi lu duwul ci jël ay nit ñi di leen xas loolu mooy nekk sa dalil nga ne nit ñi bëgguñu dégg ban dégg nga leen indil yow indiwoo benn dalil buñ la tegalee sa pas-pas sax munoo ko defandi nee na loolu mooy makrul ilahiyil hasan dégg nga ci dëgg-dëgg loolu may ku def makru mu fayee loolu ku def suxuriya mu fay la ko ku def istihza mu fay la ko ku def eh, lu ñu wax xidaa mu fay la ko waaye yooyu du melokaan nee waay waru doomi aadama de loolu dafa am usul ci charr maanaam loolu am na usul ci ci lu makru doomi aadama de lu bon la doomi aadama yi makru def lu bon yooyu yàlla fay ko ko alquran loolu la wax loolu lu bon loolu loolu mooy topp doome aadama bi lu koy topp noonu loolu la ñuy wee waaye du wul makru bi comme buñ ko fiire ci baatam walla ci doomi aadama wulamaa yi boroom xam-xam yi te jëfu yàlla boobu dañ ko misaalal ci nit ki nga xamante ni da ci net comme jant jant de lumière am wala dafay euh, dafay tiim lépp bi mustawan bi mustawa wahida ñëpp dañuy jot lim ñett jotandoo lumière jant bi waaye bu ñu demee dañu tere doomi aadama bi lumière jant bi yàlla teree ko ko kooku de du nekk ci lumière de kooku ci zill lay nekk ci kër lay nekk foofu lay mas nekk bu ñu yëngatoo yaramu nit ki buñ ko yëngatee eh, ci ndeyjoor ak càmmoñ fu mu jëm rek zill boobu mooy kër boobu walla lëndëm boobu daf koy topp dégg nga nee na sabaan fa ananiyatul insaan kal nit ki fu muy dem di fëgg denn mbokk yi nee na foog boobu ak ngëm-ngëm boobu bu koy yóbbu ba moom mu ne tey woote woo ci lislaam foog ni moo gën ñëpp wala kuréeloom moo gën ñëpp ku nekkul ci moom lu mu nekk kooku ci neen na nekk loolu la ñuy tuddee ananiya égoïsme loolu mooy ngay woote woo moy mooy taasub te yenente nee na laysa minna nekkul ci samay nit man kaana fi qalbihi ki nga xamante ni mu ngi ci xolam miskaala zarratin lu tollu a tat min al asabiya ci asadiya kon donc nee na loolu de ab dafay xecc lëndëm lëndëm ci doomi aadama comme mbëggal du gis mukk dafay yaakaar ni moom fu mu nekk dëgg foofu la nekk du jéem a sax gëstu nee na loolu de lëndëm lëndëm lay xecc ci moom moom du am leeru borom bi subhaanahu wa taala nee na bi égoïsme bi ananiya dafa am dafa am bi ananiya dafa am eh, wujud dafa am wujud nee na loolu de du mbiru yàlla nit ki nu muy nekkee ci ananiya du yàllaa koy def ci doomi aadama du moo koy def ci nit yàlla de hidaaya de ak mahabba li nga xamante ni nee na eh, hidaaya ak mahabba comme borom bi subhanahu wa taala nu mu koy defee ci ay jaamam muxlasiina ñu sell ñi nga xamante ni seytaane nax leen waaw loolu la yàlla di def waaye kanta anaaniya wa taassub anaaniya boobu ak taassub boobu comme yahudi dañuy wax ni ñoom ñooy shaabullahi almuxtaar ñoom ñooy peuple bi nga xamante ni ñoom la ya peuple boobu moom la yàlla tànn noonu la tamit de wahabiyuuna yi dañuy wax ni ñoom ñooy waa ahlu sunna wal jamaa de ku dul ñoom kooku wasani yu la mushrik la xubóori jéemu ñoo xool gestu ñoom ban pas-pas lañu pas kon donc makru boobu de moo leen di topp ñu sax ci dañu nekk ci lëndëm lëndëm boo leen indilee leer duñ ko duñ ko am mukk loolu mooy makrullahi yàllaa leen fay ci loola li nga xamante ni suxuriya wala istihsa wa makru wa xidaa bi ñuy def doomi aadama yi moom la leen di yàlla di fay nee na doomi aadama saa yu mu gën a nekk naafeq mu tar ci nifaaq bi dégg ngeen ci ci lu muy def ci nifaakam di def makru payooru yàlla noon lay taree ci moom li nga def rek moom la lay fa mbokk yi nee na loolu nga xamante ni moo ko dal moom doomi aadama boobu mooy sababu lo nee ni lu luy ab tooñ tooñ bi li ko waral loolu mooy jëmm bu lëndëm boobu nga ni amul lumière jant boobu te moom moo yóbbee boobu boppam foofu nee su amul jant nag loolu mooy wujud bi nga xamante ni amul benn lumière du am benn lëndëm nee na loolu lëndëmu kurus lay nekk yal nañ ci yàlla musal lëndëm kurus boobu yal nañu yàlla musal loolu kon bokk yi makrullahi bi yu ñëw ci aaya nii lañ ko fire wul ni ko wahaabi yu nay fire waroon ak loolu trop bu ngeen xoole ci suuf loolu may masdar bi bu ngeen defee demee ci Hassan bun Mohammad Bakir tafsir Safi page cent huit li fekk wax ji kon mbokk yi fii lay yemandi ak yéen ñu daldi di julligee incha allah comme nu ma ko daan defee te di njaaxaanaay rek saa yu ma leen inde lu wahabi yu nay wax dinaa indi li nga xamante ni moom la ahlul bayti jàngale jàngale ko seeni taalibe chiatu ahlul bayt alayhim afdalu salaatu wassalaam ci baatu yu nga xamante ni wahabiyuuna yi ñu ngi ci bokkaale subhaanahu wa taala kon mbokk yi ci lool la ñuy yemandi inchaa allah ba xalaka qaadima inchaa allah ñu indi wahabiyuuna yi lu ñu setale yahudi yi jàppaleen muminuuna lañu waaye di takfir jullit incha allah dinañ ci ñëw bi nga xamante ni day leer nañ allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki suñu dars buy ñëw lool mooy ibnu ibnu taymiya alharrani wal yahud nan la jëlee yahud def leen ay muminuuna setal leen waaye ci ñoom jullit yi ñoo yeefe ak ak Ben Baaz tamit ak yahud yi gannaaw loolu Muhammad Nasiruddin al al albani wal yahud allah bii mooy nekk suñu dars buy ñëw incha allah te yooyu yëpp mbokk yi bu neexee yàlla du ay sosalaate waaye ay texte yu leer la yu ñu jël ci seeni téere yu ñu jël ci seeni téere ñun duñu il duñ leen ilzam mukk loo xam ni nit ñi ñoo ko bind ci ñoom waaye ñoom ci seeni bopp lu ñu bind ci seen téere moom lañuy indi bu neexee abu ñu ngay jaajëfal bu baax a baax a baax baax di la wax amiin yal na ko yàlla nangul jullit yi yëpp defal ñu ko defaale ko mbooloom jullit yi yëpp waaw loolu moo gën a am solo waaw ñu ñëw ñu dajji ko ak xam-xam loolu dafa am solo dajji ko ak xam-xam lii moo gën tuumaalaate yéen a wax lii yéen a wax lii a wax lii comme nu ma ko gisoon sànq sax indi benn xet benn waa ji làqu fele ñu koy paase ay ojo muy yonni <laughs> te xet boobu kax sax wax dëgg yàlla bu ko photo woon dugal fii mu baax trop Hmm, ndax man gis naa ko waaw ah, mais incha allah ay tuumaala te amul benn solo lii moo gën jàngale pas waaw loolu moo gën may nuyu ñëpp di ziar ñëpp de kuy ñëw rek ay waxu picc yeeg dugg na fi génne na fi man duma tontu loolu te duma ko uyu tamit lu may uyu mooy lu ma wàccee nii ñëw tontu ak xam-xam